Fatima Amin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 asalaamualeykum. mbokki jullit yi mbokki taale bi ñu ngi leen di nuyu yëpp di jël ci nuyoo bu suñu mbokk yi tey fi teew buñ ko xasee teg seen loxo rek jàllale di ko fépp war a àgg muy imam sëñ Sidi Abdou Khadr ak sëñ maam Cheikh Ba Cheikh Mamadou Fadal gannaaw buñ leen di yoon nag baal leen àq àq. xam naa wax ji du bari kàddu yu néew lay doon dañ koy jëbale rek ci orma rek bu ñu neexee ñu dolli ci xam-xam bu ñu neexee ñu dolli ci xel waaye orma ji li ñu war a jox Sëñ Tuubaa te joxuñu ko dëgg la naam ñu ngi jox dëkkam bi orma di ko sonne nu ne waaye nag ki ko fi nekkal te wutu ko itam dañ ko war a jox orma te ku ne xame joxuñu ko orma jam yellool te moom de képp ku ku ko yilifoon rek jox na la orma topp nay kilifam di wéy seen ndigal di bàyyi seen tere ba nekk fi yàlla dogal itam li waral ak mat yëpp nekk ci moom muy xam-xam bu leer nañ ak xel mu leer nañ xam-xam nag ba it ba ñuy wax bu ëntëg rek yàlla taxul ñuy wax ndax inna allati lam yaxsa rabbal alamin laysa bi alimin wala afnatum boo jàngoon téere ba yaxtegalu yàlla itam doo fal xilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahu nurun maa moom nag boobu laa am boobu ànd ak nuur ak wilaaya boobu la ko yàlla teg xel mu rafet itam am na ko bu dee sëkk sëkk sëkk di muñkat di jaamukat yàlla di taali loolu nag kon ne sañ nag kuy roy itam boo sañoon sa kilifa da lay gën a jub sa kilifa da lay gën a ragal yàlla kilifa da lay gën a xam yoon moom nag yooyu yëpp jaar na ci mbal yi dund na kon nag mbokk yépp ko war a jox orma waaye taalib yi rawati nag am nañ melo woo xam ne cim xel rek lañ ko teg te xel amul njëriñ xel dëgg la naam baax na lool waaye nag xam-xam ko gën mooy xam-xam bii ma wax sëñ bi dénk ko mun na doona amul xam-xam ba di def naqatu ku nekk critiquer ku nekk xam-xam ak xel nag mas nañoo wuute ak yoogu tuuti ku ne ku ne ni maa ko yor xel xel xel ni maa xam-xam ni maa ko yor xel ni maa ko yor xilmul alimi wa aqlul aqil ixtalafa man sallasi minhuma qad axrasa sharafa فالحلم قال أنا أحرست غايته والعقل قال أنا أحرست غايته فأفسح الحلم إفساحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل الحسن منه وانصرفا بوي خم خم بأم جاي bu ko nee maag la kii ni maa maa tedd nga ci man la ne kii ni tedd xel na tedd nga ci man waaye nag bañ jël si waatee xam-xam ne kan la ci yàlla suuf ci noonu kan la yàlla misaal ci noonu kan yàlla joxe porte leen ñoom booba nag la xel doog a xam ni kii sa ngam moo dogal ngant daal di delloo xam-xam boobu ak xel moomu nag comme dañu sa kilifa xamal ne sa kilifa am na lam bu koy niital ba du ba doo tàbbi si lëmb noonu nag yàlla baaxee na ma loolu waroon war na la changé melo war na la changé wu jëfin xale yi li sëñ Tuubaa di ngay dégg dañ ko wàccal saqe naa yokkal kabir wàccal kabir naa yokkal saqe nit ki balaa mën a dimbali leen koy fonk wàccal saqe naa la ndaw ñoo war a respecté seen mag boo ko defee seen i mag mu leen dimbali ñàkk ndimbal gi yëpp loolu la nga ko waral buñ delloo ci njàngalam sëñ Tuubaa kon sëñ Sidi jàng nga xam nga tey nga ci yoon yar nañ la li manqué nag mooy loolu yar nit ñi dañu am seen doom duñ ko yar duñ ko jàngal bàyyi ko muy dox ci barke sëñ bi bu ko defee buñ génnee ñuy xas mbàkke mbàkke ak xas yoon te ñooñu ko yóbbee kon nag nañ futti ko waat ci yar suñu doom ci jàngal suñu doom wax naa ko xam-xam bu antu ragal yàlla amul njëriñ boo jàngoon ba rawuleeg tam te ragaloo yàlla sa xam-xam moo ko sa comme mbaam mu sëfi rek te amul njëriñ yar mooy màndargam lépp yar nag léegi am na noo xam ne ni ñu koy defee moom njàngale mi mooy sos sa daara internat fële di fayu di leen jàngal ay ñuy mokkal di ko wayante tafsir jàpp ni mooy déedéet jàng dangay ngay jàng beqi bind kaamil hmm? bo looy jàng doo koo jàngewaat muy tëj boobaa mokkal alxuraan waaye lii nag moom mi ngi mel ni woyanti rek xaj dañ koy mokkal ñaari fan ñett ñu fëtt ko loolu dëgg yàlla te nit ñi woyanti yooyu ñuy way ak neex gi mu neex jàpp nañu foofa la yëf yi nekk foofa la xam-xam bi nekk foofu lépp te foofu dara nekku ay ay way rek dafa nekk ndax la yonent bi waxoon ci siinu bilaan siinun la rek bañ koy sawar ci ñàkk ma mën a jàng siin yonent bi siinu bilaan boobu léegi nga maxaalisu dara kon nan doon itali nan gëm sëñ Tuuba nan fukk ko nangoo liggéey nan yar suñu njaboot boo gisee suñu waju yu baax yi la na ci sëñ son bu lépp mu ngi sëñ Abdou Khadir waaye daa ba yëkkatoon njaboot def ko ci sëñ son bëgg am dal mën a ko def sa doom waaye ñu defal la ko ndax yéen maa ji nekk nit dañoo yëkkatoon jox ñu sëñ Saliou ngir loolu la sëñ Saliou man sëñ Abdou mën na ko waaye dañuy complément bu ko defee jikko yi yor ñu xam ne sëñ Tuubaa rek a fi nekk waaye nit ki soo ko wanee sa bopp miinal ko sa bopp sa bopp rek lay xam jàpp ni yaa fi gën di xeeb say bokk di xeeb say morom loolu dëgg du taalibe bi wasalaamaaleykum wa